muy ministre des sports Matar Ba ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax dafa dalal ñëpp mais bi mu dalalee ñëpp ginnaaw wa discours bi nga xamante ni jot na ko wax mooy képp koo xamante ni demoon nga CNG régulariser sa combat dinañ la ndàmpaay ndàmpaay boobu loo ko gisee en tant que promoteur. waaw ministre des sports maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm xewal sutura wax dëgg yàlla nekk na koo xam ne ci soir li mu def ci sport bi ci ministre at yi mu fi toog kenn toogu ko fi. Hmm. nag ubbeekoom la liggéeyam la day déglu xalaatu nit ñi loolu ñu ko ci encouragé mu continuer loolu. xeebul xalaatu kenn. waaw fi nga wax nag dafa am solo muy ministre bi discours bu mu wax ne dina jàppale ñu régulariser woon. foofu tamit damay ñëwaat rek joxe fa sama xalaat. ndax mbir bu amee comme li may wax benn nan nañ ko omelette buñ ko omelette nañ ko mayonnaise ku ne càpp jëm sa jël sa wàll. Mm-hmm. Covid bi bu mu wàccee ci réew mi. Sénégal yëpp la impact. Mm-hmm. te ñëpp ñu ci bëri boog kuréel yu ci nekk état am na lu mu jëf ak ñoom. Mm-hmm. kon bu ñëwee ba ci làmb wala mu ñëw ba dugg ci espoir mu ñëw ba ci làmb ñu ne ñu régulariser woon loolu nag seen xalaat la waaye man en tant ku nekk ci làmb giseewu ma ko noonu te warul demee noonu. àndoo ci loolu. ànduma ci loolu. ndax lu tax ànduma ci. Mm-hmm. bi saison bi tijjee promoteur yëpp dañoo dem dagg seen licence. ñaata 300000. ñi 300000 ñi li simple 100000. Mm-hmm. képp ku daggoon sa licence da pare woon pour liggéey ci année bi. Mm-hmm. taxawal say combat amul régulariser amul ñàkk régulariser mm-hmm. bi nga taxawalee bi Covid bi ñëwee waxuñu ko régulariser woon bu mu tëgg dañ ne ñëpp nañ arrêté activité yëpp. ñëpp arrêté seen activité toog di xaar. kon bu fekkee dafa am loo xam ne dafa jógee ci état sàmba moomu ko demba moomu ko état ko jël dugal ko ci kuréel googu képp ku nekk ci kuréel gi dañ nga war a gis sa bopp. loolu mooy dëgg te loolu mooy li war a am ndax xaalis bi budget la bu jógee ci état ensemble wate ko mu war a dem ci ñëpp te ñuñ fi dégg yëpp mu dugg si ñoom dégguñu buñ naan nañ xaajee ñii wala ñii dañ ko fay dugal fi mu war a dugg kenn ku ci nekk nga war ci gis sa bopp nga gis ko ci. Hmm. ndax écrit yi affilié toon nañ promoteurs yi daggoon nañu licence mbëri daggoon nañu licence amaana nag munoo am lu daj ñëpp waaye loo gis si àdduna dañ koy organiser hmm. ndax ñépp xam nañ làmb ji nu muy doxee da ngay taxawal say combat bu combat bi jege see desee deux semaines ngay dem te régulariser ko ci bëri soo régulariser bàyyi fa sa sa sa sa kii mm, reliquat yi CNC bi Covid bi ñëwee képp ku fa amoon reliquat promoteur boo mënta doon war nañ la delloo la ko kon foofu régulariser amatu fa palaas mm-hmm. lii la làmb moom promoteur yi ñoo moom lii lii ci mbëri la jëm. lii ci ménager yi la jëm lii ci écrit yi la jëm nañ ko def nu mu waree ku ci nekk loo ci am nga jël ko ndax dafa am promoteur ligue simple ñooñu du ñuy régulariser kanaa kon ñooñu bokkuñ ci. Mm-hmm. bon ñu régulariser ñu régulariser xool ko matul cinq promoteur wala six nga jox leen li nga leen jox ñeneen ñi si des daggoon seen licence waroon a liggéey liggéeyuñ toog booba léegi jël seen xaalis jox ko ay mbër di toog di xaar nga bëgg ci bedd ñooñu wala nga génnee si ñooñu suba nga bëgg taxaw ne dimbale nga làmb waa làmb bu ñu amee ful la nañu taxaw carrément ne dimbale woo làmb. a demul nu mu war a demee. Mm-hmm. état bi bi mu ñëwee dugg ci koñ di jàppale nit ñi di joxe ay ceeb ak ay suukar ak ay diwlin xooluñ kii ci parti bi la bokk xooluñ kii fee la bokk dañ jox ñëpp boo ñëwee ci làmb di dimbale njabootu làmb joxal ñëpp su fekkee amoo lu mën a jox ñëpp nga organiser affaire bi man li ma gisoon du ay joxe xaalis. loo gisoon. am na ay am na nit ñi dangay laaj nit ñi seen xalaat ñu wax ji lii saison bi dafa ñëw ñëpp a dagg licence kenn tëggul wala ku ci tëgg benn événement nga tëgg saison ñu war a jëmaat ci saison promoteurs yi amoo lu jox ñëpp ñëwal teg wax waa CNC organisé déwén promoteurs yi daggoon licence yëpp ren ci saison bii saison bii di ñëw bu kenn dagg licence jàppale nga ñëpp. wa ilaa arène nationale lañ jëm état ko moom état day dimbalaate déwén promoteur bu nekk dinañ la may sa première journée nga tëgg bul fay stade mu wàcc la loolu dafay metti loolu est-ce que du metti ci état bi. lan dafay metti ci état bi. promoteur yi fi nekk yëpp cent promoteurs yoo xamante ne ñu ngi ci làmb ji ku nekk di tëgg nga bëgg wax ni cent personnes yooyu ku tëgg arène nationale deux journées yoo xamante ne doo ko fay cent personne personnes ku nekk deux journées loolu deux cent journées la. waxuma la waxuma la deux journées jili mbir bu ñëwee dañ koy organiser. Hmm. bi corona bi ñëwee état bi dafa wàññil société yi bëri. ñuy liggéey sax dañ leen wàññil seen salaire dañ ko wàññi ngir jafe-jafe dama ne la su fekkee amoo loo mën a jàppalee nit ci koom-koom dafa Hmm. ku joxe xaalisam war a liggéey liggéeyul amul ci lu mu jàpp. nga ne promoteur yi daggoon licence laa la wax. Hmm. waroon na tëgg làmb corona bi ñëw saison bii ñu jëm état may na leen ku ci tëgg sa première ne stade bi ñu teggil la ko jox la ko ndax stade bi làmb ko moom fa laay waxee. loolu laay wax. Hmm. wa ilaa licence yi ñu daggoon licence déwén bu ñu dagg licence. amul benn promoteur bu naan gisuma ci sama bopp amul kenn ku nekk si njabootu làmb ku naan gisuma ci sama bopp écurie yi affilié affilié nañ écurie bu nekk écurie bu affilié toon daaw ren bu mu affilié écurie bi gis na ci boppam mbër mi gis na ci boppam côté boobu man fa waxee foofu laa bëgg a ñëw mhm. licence yi mbër yi daggoon licence daaw mënuñu tëgg bëreewuñu ren bu kenn dagg licence au lieu que boobu ñuy jël daan di tas naan ay ñoo egg ñu kii ñu régulariser ñu régulariser wul ñu jël ko dugal ko CNC lamb ñëpp gis ci seen bopp. loolu mooy loo xam ne lu war a nekk la. ba boo ñu régulariser wul nga jël comme li ma la waxoon sànq cinq promoteurs six ñu ne ñoo régulariser ñeneen ñi régulariser wuñu suba nga bëgg taxaw dimbale lamb dimbale bu waa lamb amee ful de nañ taxaw ne dimbale woo lamb waa lamb gisuñu seen bopp ci dimbal gi. loolu mooy li war a am. daanu nag dajut suuf li mu wax am na solo trop euh, ñuy ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax moom Jamaïcain